waaw résidence bi mooy barab bi nga xam ne nii délégation yi nga xam ne ñooy ñëw di màggal si lu mel ni tarixa yi ak yeneen délégation religieux yoo xam ne dañuy jógee ci yeneen réew yi su ñëwee fii la leen sëñ bi di dalal ñun la leen di dénk nag ci wàllu bernde yi waaye ñaari résidence la muy bii ci jumaa ji ak bi nekk Daaru Marnaan fu ci nekk itam ay appartement yu wuute moo fa nekk ak ay chambre yoo xam ne nii yu mucc ayib la 2008 ba léegi ñu yore wàllu organisation bii benn yoon la gan ñëw laaj lu soxla te amu ko te dañoo dem wuti ko te muy fera passé mooy gan gu ñëw yor yéeram def ko ci valisam mu xaw a froissé mu war a dem cérémonie ba laaj ñu ndax am nañ feer amuñu ko dañoo dem jëndi ko ci boobaak léegi nag dañ ne moom ganu Kër Sëñ Touba warut laaj lenn loo xam ne ni amul si Kër Sëñ Touba gi moo tax lépp loo xam ne nii lu nit di soxla woo la gan ba ci salle de bain boo fa duggee sarbet pâte dentifrice lépp saabu lépp ba ci njàmpe bi nit ki di sangoo lépp dañ koy jënd préparé ko ngir rek gañ gi bu xese ba dugg ci biir kër gi moom dara du ko manqué wàllu bernde itam lépp loo xam ne ni moom la yittewoo parce que ay ñam yu wuute lañuy la ñuy togg lu ci nekk moom li mu ci yittewoo rek lañ ko ciy jox waaw loolu mooy li nga xam ne ni noonu la ñuy noonu la ñuy waajale fii gan yi waaw en tout cas ni ñuy liggéeyee nag heure bu ñu xëyee bala ñoo joxe ndekki dinañ xam personnel bi fi fanaan ñu jox leen ndekki bala ñoo joxe añi dinañ xam nombre de personnes bi nga xam ne ñoom ñoo fa war a añee reer bi itam noonu parce que loolu mooy tax bu ñu paree ñu mën a xam ne personne bi nii la toll presque ay 700 personnes yoo xam ne ni dañuy dal fii ci biir kër gi lii lañ leen jox ci bernde bu ëllëgee ñu mën a yokk parce que yëfu sëñ Tuubaa day yokk